lan mooy ndeyu ñu ne bëccëg bi entre Guédiawaye Pikine Dakar Yëmbal yi li fiy déplacé ci ay doomu aadama dans les circuits de transport ci marché yi ñi fiy daje maa ngi jógee léegi golf li ma gis ci plage yu diggante golf ba ba ngay yegg si Jamalaay dafay yéeme mais pourtant y a des risques de contamination énormes mhm. mais lu mel noonu bu amee état bi war na bàyyi xel ne on va encore avoir fii ba mois de septembre des cas yuy gën di augmenter te li gën a grave mooy maintenant journalièrement da ngay dégg ñu ne cinq à six morts war na mu bàyyi loo xel nit ñi ne même si de bons résultats équipe yi am nañu ko ñu ngi relâché wu te de telle sorte que damay ragal mu am seconde vague seconde vague te bu boobaa lay gën a grave mhm. ci li ma gis euh, bilan bi daal docteur yi jàmbar lañ infirmier yi ak équipe yi nga xam ne ñooy équipe médicale yi jàmbar lañ parce que amuñu moyen toll nañu ay moment sax amuñu yi seen euh, masque yooyu ak seen bagage yi ñuy sol kon kay gouvernement bi bu amee échec rawatina affaire aide alimentaire bi ñu waxoon jusqu'à présent ministre bi ci boppam bi koy gérer moo ne le tiers la ñuy joxe kon ça veut dire que les deux tiers te nawet bi sóob na depuis presque deux semaines dans le sud du pays waaye ñooñu kañ nga leen di dimbale ñoo xam da nga leen bëggoon dimbale pour ñu confiner wu toog seen kër loolu aussi dañ ko boole ci les contre performance de la gestion du Covid qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après nañu xaar une récession maanaam croissance économique donte croissance Sénégal mosul jëriñ Sénégalais yi bu ñu naan six sept pour cent toujours boo ko seetee ay entreprise étrangères extérieures ñoo koy porté mhm. bi yoon croissance bi damay ragal mu nekk négatif loolu mooy récession mooy récession te uh-huh. bu fekkee ne loolu am na chomage des jeunes dafay gën a bari mhm. mieux relance tissu économique bi mhm. dana gën a jafe parce que nous ne sommes pas comme en France foofu seen structure économique dafa dëgër Allemagne seen structure économique dafa taxaw Sénégal c'est informel le secteur économique est embryonnaire. Mm-hmm. maa ngi dégg ministre bi mu ne ñi ñu nar a jàppale mooy ñi nga xam ne am nañu bilan boo xam ne mën nañ ko présenter sur les trois dernières années. Mm-hmm. mais loolu ab ban entreprise Sénégal moo fi nekk. non am na sax mais peu d' waaw mais boo déggee wax la loolu. peu d'entreprises mais ñooñu du ñooy enrichir le pays ñi enrichir pays mooy le secteur informel mooy les commerçants mooy les menuisiers mooy les chauffeurs de taxi mooy les gens qui utilisent leur savoir-faire pour dundu mhm. mais ñooñu c'est des entreprises absolument ñooñu ils sont impactés par le virus ñooñu sax ñooy le premiers impactés. te ñooñu nag kenn du leen dimbale parce que ñooñu amuñ compte bu ñu présenté surtout compte 3 ans. waaw loolu dinañ ci yegg mais mënuma la recevoir tey fii ci plateau bi te duma la laaj ñaari question yoo xam ni vraiment fan yii yëpp maa ngi koy xalaat est-ce que yaakaar nga ak fi réew mi toll. nguur gi fi nekk wane nañu seeni limite yéen am na lu ngeen xam <coughs> jaar ngeen fi am ngeen xam-xam. est-ce que tey président Macky sàll bu la woowoon. pour nga liggéey ak moom. au nom de l'intérêt exclusif du Sénégal est-ce que di nga ko wuyu. fi ñu toll. waaw ah. amatuma contrainte morale. Mhm. au plan politique. ba naan lii de su ma ko defee dañuy jàpp ne. Mhm. Euh, dama wor. Mhm. man wàccoo naa ñëpp. Mhm. président Abdoulaye Wade. sama waa kër PS lañu. ma tànn ko moom yaa ngi dégg ci présentation bi ba muy wax naan RND. dama commencé Cheikh Anta. ànd ak la gauche clandestine la LD. Abdoulaye du ne mëll ma gis ko mu doy ma ma accompagner ko. ñuy xeex ba ñu daq am administration. waaw attends sa dàq administration boobu foog ñu taxaw ci parce que man euh, xëy na yéen ma mag trop mais xam naa trop histoire taarixu politique bu Sénégal man ci li ma jàppoon. ci li ma jàppoon Ousmane Sonko moo njëkk a nekk première victime de l' administration pour appartenance politique. laajal képp ku bokk direction. moo tax may insister encore une fois de plus. laajal képp ku bokk direction commerce. Mhm. le moom mosa mosa mhm. man maa ko inventé maintenu par ordre sans affectation mhm. man maa ko inventé mhm. booba dama bind benn article journal Sopi page numéro deux tous les journalistes yu fi ma sa nekk fii wala ñi nga xam liggéey nañu contrôle économique xam nañu li ma defoon jour boobu jamono boobu Saliou Sarr moo mos a wax ne administration agent yi dañu war a loyal vis-à-vis de l'État waruñ toog di génn ay information yooyu ma tontu ko. tontu ba nag temps yooyu xale laa. saf na sàpp. mu nekk lu virulent daal maanaam. merci ba tudd ci Collin. dama xëy rek. ah Jean Collin. absolument ba le tout puissant Jean Collin à l'époque. ñu bind <laughs> bind ma boole ma ci ñu ne Babacar Gueye et je suis sorti major de ma promotion ah j'ai fait juste un an ñu ne maintenu par ordre sans affectation loolu mooy demal toog doo fi liggéey te man quand même man xam naa lu ma mënoon. xam naa aussi fu ma tolloon taayoo ci ci ci dynamisme. ci laa bàyyee pour man noonu laa ko jàppee il m'a poussé à la sortie en 1991. ci laa def le ce qu'on appelle le départ volontaire. donc waxuma ne dañu jël décision ne dàq nañ la. mais ku ñu wax jël décision ne la demal toog soxla bu ñu la soxlaa wax ak yow. damay jàpp ne jamono boobu ak sama jeunesse. Euh, liggéey administration def nangootuma ko woon bi ñu jëlee nguur gi en en gouvernement de majorité présidentielle élargie. en 91. 91. Abdoulaye daf maa woo. ne ma ñoom ñoom xamuñ administration dama bëgg ma dem ci cabinet Ousmane Ngom pour di ko jàppale. Mhm. ñu nommé ma chef service administration générale équipement. ñuy tergiversé PS yi di tergiversé am na ñoo xam ne du mu tudd seen tur parce que nekkatuñu fi dundatuñu. Mhm. ci laa wax ne président mu ne ah, ma ne ko man xañuma administration ci laa bàyyee. donc jaar-jaar yooyu dafa ma xaw a jox expérience ba tey may accompagner président. mu yor pouvoir ma koy accompagner. trois fois le président m'a appelé pour faire de moi un ministre. gouvernement j'ai refusé entre nous. c'est le sept au mois de juin le 18 juin. le 18 juin 2007. le président m'a fait convoquer dans ses appartements son bureau qui est dans ses appartements. pour me demander écoute voilà ce qui va se passer c'est ce jour-là qu'il m'a dit. ce qu'il pensait du, de, de l'actuel président Macky Sall. Mmh. C'est jour-là qu'il m'a donné l'information que Macky Sall ne serait plus Premier ministre. Mmh. C'est jour-là qu'il m'a dit ce qu'il pense du Premier ministre qu'il va choisir. Mmh. Il cherche un technocrate. Mhm. Il m'a parlé de Soumaré. Qu'est-ce que tu en penses mhm. Je lui ai ce que j'en pense du fonctionnaire qu'a été Soumaré, du ministre délégué qu'a été Soumaré, de par sa loyauté. Mhm. Il me dit maintenant, am na lu ma waxoon naa la il faut que tu changes de métier dama bëgg nga yow nga nekk sama directeur de cabinet comme damay am premier ministre boo xam ne dafa nekk premier ministre technocrate comme ça man ak yow ñuy nos ak a nocc fii ma ne ko président mu ne ah, ma ne ko may hésité noonu quoi mu ne ma mais nangu nga wala nanguwoo ma ne ko si. c'est sa de parler ma ne ko soo ko bëggee bi yoon dinaa ko nangu. loolu en réalité moom mu yóbbu cabinet président de la république ma accompagner ko ci loolu neex na neexul parce que pour man dama jàpp ne Sénégal yëpp dañ jàppoon ne jamono boobu. directeur de cabinet xam nga am na controverse mhm. il faut qu'on en parle parce que on parle de moi parle de soi nag neexul. waaw mais man dama bëgg nga wax ma tey à l'instant T balaa ñu koy fàtte. dinaa la ko wax. waaw mais dama bëgg naa ci yegsi ok parce que bu ma régler la question de sama relation ak Ablaye mhm. nga xam ne moralement man li ma war ak président Ablaye Wade yëpp wàccoon ak moom. Mhm. dem nañ ba mu nekkatul ci pouvoir bu fekkoon homme politique la opportuniste. dama naan président de amatul benn ambition nekkat président. Mhm. war naa mun a jël sama liberté. ñaata nit ñoo noonu président la république yoo xam dañ jël seen liberté dem wuti leneen. Mhm. bari na de man dama toog doomam nekk ci situation. Mhm. ma xam ne président soxla na ko ko jàppale ma continuer di jàppale président ndax doomam. fexe ba jéem a muccal doomam. la candidature c'est moi qui l'ai théorisé. c'était pour lui donner une épaisseur. mais kan moo mënoon fay un franc wala benn carte électorale ci Karim Wade en 2012 y en pas beaucoup. Mm-hmm. on a travaillé avec les la direction du parti. ba mm-hmm. jox ko cette stature. c'était pour en faire un prisonnier politique en réalité on l'a réussi qu'on qu'on le ou non. Mm-hmm. bu loolu jeexee mu ñëw dañ ko candidat man maa ko proposé mu nekk candidat. bu ñëpp fàtte bu kenn fàtte loolu. son père n'en voulait pas. j'ai insisté pour qu'on le congrès l'histoire est là. ñu koy jàppale tey xam nañu parmi eux qu'on a nommé des secrétaires généraux adjoints ñoo xam ne ñoo ma jëli sama kër ne ma si tu ne fais pas attention le président va annuler le congrès ma dem seeti ko këram mu ne ma wuy coow li day bëri ma ne ko je réussirai à faire en ba ma defee loolu ba mu jeex nekkul candidat ñëwul léegi mu wëlbati maintenant li mu yaakaar ne doole la parce que am na peut-être aujourd'hui tour am na ñu koy jàppale mu utiliser dooleem jooju pour moi ma combattre j'ai considéré que pour moi c'était la déloyauté loolu moo indi ma ne mën ak ñoom du point de vue moral je ne leur dois plus rien li ci des. Mhm. Sénégal mhm. moom laa mës a jox bopp man. Mhm. tey itam Sénégal laa jox bopp. man bu fekkee ne am na lu ma man bu ko Sénégal soxlaa ma jox ko. y compris avec le président Macky Sall. kon tey y compris demain avec Ousmane Sonko. kon tey président Macky Sall. mais nekk dara nekk dara nekkatu sama ambition politique nag. waaw d'accord naa mais tey kon Sénégal bu taxawoon.